وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحديث الثامن والعشرون ñaar fukkeelu xadiis ak juróom-ñett min kitaabi al arbaciina an-nawawiyya min al ahadith an-nabawiyyati as-sahihati nee na an abi najiixin jëlee nañ ci abu najiix brother low yo low voice a little bit west an abi najiixin jëlee nañ ci sayduna abu najiix dàkkantal la turam dëgg mooy al irbaad mm, mm. bini saariyata mm. irbaad doomi saariyata radiyallahu anhu na yàlla gërëm ko al irbaad ibnu saariya assulami ngi bokkoon ci sangi ñuñ suffa asuffa ab tànt wala xayma mu nekkoon ca càmm jàkkaay yonantu bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa muy mbaar moo xam ne mm. ñi ñàkk ci saxaaba mm. ñoo fa newoon mm-hmm. ko defee ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam la ñuy lekkee mm-hmm. wala saxaaba yi leen yonantu di booleel mm. seenu ñàkk nag ñàkkub coobarew la mm-hmm. ndax bari na ci ñoo xam ne mm-hmm. ay sang lañ fañ dëkkoon mm-hmm. am fa lu ne waaye lislaam jaral leen ñu ba loolu yëpp dikk Madina am ci ñoo xam ne saxaaba yu bari soxla woon nañ dem di wuti waaye ñoom gedd nañu àdduna taqoog yonantu rek sallallahu alayhi wa sallam di mokkal ay jàngaleem ku mel ni Seydina Abu Hurayrata Irbaat mi it ci ñooñu la bokk gannaaw ga nag dëkk na Hims kenn la ci jooykat yi sama borom di tudd ci alquran ne wala ala alladina إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون bàkkaar warul ñi nga xam ne bu ñëwee pour nga jox leen luñ yóbbu mën a xare jeeg xareb yàlla bi ndem fas la ndem jaasi la mm. ndem xeexukaay la mbaa waruwaay mm. fekk amoo loo leen jox mm. loolu métti leen ba ñuy jooy jooy yu métti ngir ñàkk luñ mën a dépenser waa luñ mën a demee ci xare ba kii ci ñooñu la bokkoon mm-hmm. mu ngi bokk ci ñetteelu tabaqaay saxaaba yi mm-hmm. bokk ci ñuy gàddaay mm-hmm. maanaam ci muhaajiruna la bokk bokkul mm-hmm. ci lansaar mm-hmm. abu musir mm. ak dul moom ci ñooñ siira mm. nee na na fi atum juróom fukk atum juróom ñaar fukk juróom mm. gannaaw gàddaay yonantu sallallahu alayhi wa sallam bari na ay ñu solo jëlee ci Mm-hmm. waaye bii bokk na ci ci gën a siiw nag mm-hmm. daanaka fu ñu tuddee xadiisu mm. seen xel xadiis ji la seen mm-hmm. mu ne mm. wacadanaa waar nañu bés waar nañu bés mm. rasulullahi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waar goo xam ne wajilat jàq na hmm. min haa ngir waar ga hmm. alquluubu xol yi hmm. wa zarafat tuuru min haa ngir waar ga aluyuunu bët yi xol yi jàq nañu bët yi jooy nañu ndax waar mooy fàttali goo xam ne dafay nooyal xol mm-hmm. moo xam waar gi dafay xemmem loo mm-hmm. yi gërëmu mm-hmm. ni ki aljana mbaa muy ragalloo yu raglu te métti ni safara yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf daa waaraay saxaabaam waxam jum ne wajilat minha alqulubu mooy xol ragal nañ ngir waar ga mm-hmm. ndax xol bu fekkee ne boroom jullit la mm. suñ ko fàttalee yàlla mm. dana tiit mm-hmm. mm. jullit yi ñooy ñi xam ne ida zukira allahu suñ tuddee yàlla wajilat yàq quluubuhum seeni xol mm-hmm. wajilat googuy dikk fii wajilat min al wa zarafat minha al-uyun mm-hmm. maanaam rongañ yi la bëgg a wax mm-hmm. kinaaya la ci jooy mm-hmm. xol bu nooyee bët jooy mu ne fa qul mm. ñu ne mm. yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ka annaha dafa mel ni waar gi mm. mawcidata muwaddiin waaru kuy tàggoo Mm-hmm. ndax jeexital gu rëy gi mu am mm-hmm. ci jooxe gi ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam jooxe mm-hmm. ak ci tem yim jottali ko ak ci melo wam leen daawaare ndax melow ajuwaare ak na muy joxe temam ak tem ba muy waare dana tax ki ñuy waar xolam nooy mm-hmm. mu ragal mm-hmm. bëtam jooy mm-hmm. léeg-léeg waare guñ lay waar mm. fekk yaa ngi janoo mm. nekk ci barab biñ lay waare mm. mooy gën a jotal même waare gi su fekkee ne dañ la ko nettali mbaa nga dégg ko sax ci ki koy def fekk ci ab kaset la mbaa nga déggu sax ci ki koy def fekk ci ab kaset la mm-hmm. dëgg la nit dana dégg ab waa dana dégg gu waare ci vidéo mbaa ci kaset mm. mbaa ci lumoo lumu mm. mu am taasiir mm. waaye taasiir gi muy am fekk yaa ngi janoog xaalul waaxil ak infilaalul waaxil du bokk mm-hmm. Mm-hmm. fa qul naa ñu ne yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kaannaha mel ni mm. waare gi ñu waar mm. mawcidatu muwaddiin mm. waarug aji tàggoo la mm-hmm. fa awsinaa dénk ñu bokk mm-hmm. loo ñuy dénk qaala la ne wusiikum maa ngi leen di dénk bi taqwallahi mm-hmm. ragal yàlla mm-hmm. azza wa jal mm-hmm. ndax dénkaane la ca gën mm. mooy dénkaane gu yàlla dénkaane te ragal yàlla mm. moom la yàlla dénkaane ci alquran wa laqad wassayna alladina utu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah yàlla wax na ci sóoratu nisaa la ay téeméer ak fanweer ak benn nun dee dénkoon nanu ñi leen jiitu ñi nga xam ne joxeefoon na leen téere dénk nañ leen yénit même dénkaane ga te mooy lan an ittaqullah ragal leen yàlla ndax yàlla kat mooy bopp bépp xiw mm-hmm. dëgg dëgg ragal yàlla nag mm. mooy topp ko mm-hmm. la tegloo tànk nga teg ko mm-hmm. fu la tere du la fa gis te mu tege ci xam mm. tege ci wóolu am ku mm. ragal yàlla an taabuda allaha ala nuurin min allah ragal yàlla mooy nga jaamu yàlla hmm. ci leeru leer gu jógee ci yàlla hmm. tarju sawaaballah hmm. ko yaa ngi yaakaar ca loolee yoolub wa an tatruka ma xarama allahu nga bàyyi li yàlla xaraamal ala nuurin min allah ci leer gu jógee ci yàlla mooy nga xam ne li yàlla ko tere tax saa nga ragal allah bugalum yàlla am ku ne xalli zunuba sagiraha wa kabiraha daka tuqa hmm. wa amal kamashin fawqa ardi shawki yaxdaru ma yara hmm. laa taxqiran sagiratan inna aljibala min alxasa mu hmm. ne xalli zunuba baal bàkkaar yi sagiraha way ndaw seen wa kabiraha way mag seen daka tuqa loolu ragal yàlla Mhm. wa amal ka maashin fawqa ardi mhm. nga def comme si yaa ngi doon dox ci suuf soo xam ne fa fees dell ak dëj mhm. koy def yaxdaru dafay wattandiku maa yara la muy gis ciy dëkk dana xool fu muy teg tànkam laa taxqiranna sagiratan inna aljibaala min alxasa bul xeeb bàkkaar su ndaw ndax doj yi mu rëy yi nga gis kat montagne yi rëy nga gis ay doj yu ndaw lañ dajale rek mm-hmm. xeer yu ndaw a ndaw moom mm-hmm. lañ dajale mm-hmm. bañ bëri rek nekk montagne tax nit du xeeb bàkkaar ndax bàkkaar yu ndey buñ dajaw rek dajaw dajexee nekk bàkkaar yu mag ne kon maa leen aussiku maa ngi leen di dénk bi taqwallahi dénkaane yàlla yi ragal yàlla nga xam ne lépp lu nit di wut rek ñu ci ragal yàlla mm-hmm. fekkee xam-xam la mm-hmm. yàlla nee na wattaqullaha wa yuallimukumullah bu mm-hmm. fekkee xat-xat la nit bëgg a dékk génn mbaa mu bëgg wërsëg yàlla ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaytu laa yaxtasib su fekkee ndimbalu yàlla la bëgg yàlla ne inna allaha maa alladina ttaqaw walladina hum muxsinuun su fekkee xam fi ngay teg sa tànk mm. ak lépp leer ci yow nga bëgg mm. yàlla nin tattaqullaha yaj'al lakum furqaana mm-hmm. su fekkee bàkkaar nga bëgg mu baal la mu mm. teg ci ne wa yukaffir ankum sayyi'aatikum wa mm-hmm. yaghfir lakum mm-hmm. su fekkee wilaayatu nga bëgg yàlla ne in awliyaa'uhu illa almuttaquuna walakinna aktharahum laa ya'lamuun su fekkee ne danga ragal safara yàlla ne wa in minkum illaa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya summa nunajji alladina taqaw yal nañu yàlla boole musal ci amiin yaa rabbal alamin su fekkee xaaja na nga bëgg yal nañu ko yàlla boole may amiin yaa rabbal alamin yàlla mu ne saaricu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ardu uiddat lilmuttaqina ndax ragal yàlla mooy lépp mm-hmm. maa ngi leen di ragal yàlla mm-hmm. wa sam'i ak dégg mm-hmm. wa taati ak topp seeni kilifa lii wane ne seeni kilifa la ci jublu mooy wa in ta'ammara bu dee sax yilif na leen wa in ta'ammara alaykum même su dee buuru na ci abdun ab wa in taamara donte yilif na leen wa taamara donte yilif na aleykum yéen abdun am jaam suñ demee ba jamono yàqu sax ba koo xam ne des dañ ko daan yilif yilife ku xamul woon war topp ci ñi xam nekk ci kanam ñi xam waaye nga xam ne mooy ko hmm. dana créer euh, kaw bu gën a métti hmm. nee na nga ànd ak kooke hmm. wàllu musiba moo tane musiba genn wàllu kasara moo kasara wa in taamara donte mujj na di amir aleykum ci yéen sax abdun am jaam boo xam ne dañ ko moomoon hmm? danañ ci dikk ci nu gën a yaatu mu ne fa innahu naka lii mbir tey mbir man ku dudd na minkum ci yéen mooy ku gudd na fan fa sa yaraa dana gis ixtilaafan wuute kathiran ju bari waxoon na ko saxaaba yi nga xam ne dund nañu te seen fan gudd liñ gis ci wuute ak ci fitna ak ci xeetu xay kenn mosul foog ne loolu lu mën nekk la waaye yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na leen ko moo tax bañ ko gisee jaax jaaxalu leen fa innahu man yaish minkum fa sa mm-hmm. siin gi siinuk taxqiq la ànd mm-hmm. ak uh, mm-hmm. waneewu wone guy wane ne nu ko mm-hmm. jamono yàggee rek fitna yi di gën a bëri ñaareel sax ku gudd fan mm. dana gis ci fitna loo xam ne ñi gàtt fan duñ ko gis rawatina nag fitna joo xam ne mm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne mm. dana dikk fa innahu naka lii mbir tey mbir man ya'ish ku gudd na fan minkum ci yéen fa sa yaraa dana gis ixtilaafan wuute kathiran fa innahu man ya'ish minkum fa sayaraa dana gis ixtilaafan wuute kathiran bu bari mu mel ni dañ ko ne waa moo buñ fekkee jamono yu wuute nu ñuy def ngir ñu mucc ci fitna mu ne fa aleykum na ngeen taqoo bi sunnati sama sunna man yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati alxulafaa ak sunnaay xulafaaw yi mm-hmm. mooy ñi ma wuutu mm-hmm. ñey woy jub mm-hmm. al mahdiyina ñey ñuñ gindi abdu alayha na ngeen ko matt na ngeen matt sama sunna wala na ngeen leen matt sama sunna ak sunnaay samay xulafaaw bi nawaajibi ak seeni dégge xawaajis mm-hmm. ay déggéej mm-hmm. mooy bëñ yi nga xam ne mm-hmm. ñoo gën a dëgër ci gémmiñ te nekk ci wàllaa ñoom la wax déggéej mu ne buñ demee ba gis fitna ak wuute li ñuy musal mooy ñu ngoy ci sunnaam ak ci sunnaay xulafaaw bi hmm? bañ dugg ci dara loo xam ne hmm. luñ sos la hmm. ndax yëf yi hmm. yëpp mi ngi ci topp baax lépp mi ngi ci litti baaw mooy topp xay gépp ak xay mi ci litti daaw mooy fente lu la neex ci diine moo tax mu ne wa iyaakum na ngeen wëttu wa muhdathaatil umuur yi yuñ sos ci mbir yi mm-hmm. ci diine ji mm-hmm. fa inna kulla muhdathatin mm. yëg leen ne lépp luñ sos mm. bidaatun bidaa mm-hmm. wa kulla bidaatin mm. yëg leen bidaa dalaalatun réer la digal nañu ñu mooy ci sunnaam mooy ci sunnaay xulafaaw moo ñan ñooy xulafaaw xulafaawu raashidoona suñ leen waxee hmm. ñu ngi ci jublu ñi nga xam ne hmm. ñoo wuutu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci hmm. xeetam te ki ci njëkk mooy seydina abubakar siddiq radiallahu taala anhu mooy xalifa bu njëkk ñeel xeet wi nga xam ne daanaka yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nassu xilaafaam nassu gu jege yaqin ndax jëflante gi mu jëflanteek moom hmm. ci jamono yu bari hmm. ñuy junjune mooy wuutu yonantu sallallahu alayhi hmm. ci misaal jigéen mas na koo dikkal moom yonantu sallallahu alayhi ci soxla yonantu sallallahu alayhi wa ko mu ne ko su ma la fi fekkul nu may def mu ne ko demal ci Abubakar maanaam soo ma fi fekkul Abubakar moo may wut hmm. am na fu mu waxee yàlla ak yonantu ak jullit yëpp bañ nañ hmm. ku dul Abubakar ne ci seen kanam hmm. ba demee ba jee dege dee jege wax na ne nañ fattu bunt yëpp am des buntu Abubakar moom it la def muy xalifaam di jiite jullit yi ba mu feebaree ñu ne loolu mooy limaamatu suxra mm-hmm. maa ngi cay junj ne mm. ku méngoo limaamatu suxra fekk maa ngi dund mm. su ma fi jógee kon mooy méngoo limaamatu kubra mm-hmm. ba aj wàccee it balaa mu aji mm-hmm. Abubakar la jiital ci atum juróom-ñeenteel bi mu wuutu ko ba ci atum fukkeel ma la soog aji atum fukkeel ak benn la fi jógee mm-hmm. mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam gannaaw Abubakar xalifa Seydina Omar mm-hmm. moom la amirul muminin moom lañ ko njëkk a dàkkantale ndax Abubakar lañ doon dàkkantale xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa su ko defee Omar buñ ko bëggee dàkkantale xalifatu xalifati rasulillah dafay gudd moom lañ njëkk wooye amirul muminin moo ak Abubakar hmm. ñoom lañ daan tuddee ñaari àndandoo yonantu hmm. sallallahu alayhi wa sallam hmm. yonantu lu bu ne dem naa bés man ak Abubakar ak Omar dikk naa man ak Abubakar ak Omar moo tax Seydina Abubakar it xam ne ki gën a yeewu xilaafa gannaawam mooy Seydina Omar mu daal di ko nit ñi fal ko ñu ko xilaafaam wér na mm-hmm. tax ci ab xalifa la jógee mm-hmm. xalifa boo xam ne mm-hmm. xilaafaam wér na ndax yonentu sallallahu alayhi wa moo koy junji daanaka xaw koo yaxal-yaxal gu wóor nit ñi jaayanteeg moom gannaaw Omar xilaafa gi ñëw ci Usmaan ci mashura nga xam ne Seydina Omar moo ko créé moo ko organisé mm. ne diw ak diw ak diw mm. buñ dajee kuñ fal rek mm-hmm. mooy xalifa waaye mm-hmm. ñi nga xam ne yonentu gërëm na leen mm-hmm. waaw gannaaw Seydina Ousmane Aliyu moom la jullit yi ñii ñoom lañuy ñuy tudde alxil alxulafaa raashidoona yi nga xam ne kenn weerante wu ci gannaaw aliyu it hmm. doomam seydina xasan ci la hmm. bokk hmm. ndax juróom benn weer nekk na ko di xalifa mottali xilaafa arrachida yi yi nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam junjoon na ko gannaaw ga nag ci la tanazul bàyyi yëfi seydina muawiya ngir jullit yi booloo at moom la ñu tuddee amul jamaati ñoo ñoo el xulafaa yi nga xam ne ñoom la yonentu wax ne nañ rey ci seen sunna mm-hmm. lu tax ñoom ñooy ar rachidin mm-hmm. ñooy woy jub mm-hmm. ba pare almahdiyiina ñooy ñuñ gindi hmm? mënoon naa wax rek waaye lu tax mu ne mahdiyiina tawkiit la maanaam ñoom jub nañ ndax yàlla gindi na leen te ku yàlla gindikat nga jub addu alayha bin nawaajidi gim wax mooy ci sunnaam ak sunnaay xulafaa mm-hmm. nawaajid yi nga xam ne ñoo gën a sori ci bëñ yi mm. na ne nañ ca mat mm. sunna ba mu dëgër mm-hmm. te sunna duul jëmm yu ñuy lekk mm-hmm. waaye mi ngi ñuy wan mm. eh, statuk mooy guñ ci war a mooy ak jàpp guñ ci war a jàpp bam ñu ne nag wa iyaakum wa muxdathaatil umuur lañu wëttuloo li nga xam ne dañ koo sos mm-hmm. te bidaa ci mm-hmm. diine mm-hmm. maanaam teet leen ko wa iyaakum na ngeen wëttu wa muxdathaatil umuuri lépp loo xam ne dañ ko sos yi diine te cosaan ci sharia koo koy bidaa boo xam ne des koo war a bu dee yuñ sos nag ci mbiri àdduna am na ci yuy jëriñ dañ koy jël mm-hmm. yuy lor ñu mm-hmm. ba mm-hmm. yuy jëriñ dañ leen di jël yuy lor ñu ba waaye luñ sos ci diine nag feek amul cosaan ci shara kooku bidaa la boo xam ne des ko war a tax mu ne fa inna kulla muhdathatin bidaa te nag kullu bidaatin dalaala ay kullu bidaatin bidaatin fi diinillahi azza wa jal xadis ji am na ay yu bëri ni ki xadisu yonent yëpp sallallahu alayhi wa sallam dalañ jànge ci xadis ji mashruiyatul mawidati maanaam lislaam ni mu bëggee ni mu yoonalee ak waar te bëgg ko waaye bëgg na nag ñu def ko ci bërëbam mm-hmm. warta bëri ba mu ëpp mm. ndax su bëree rek mm. nit ñu yokkat mm-hmm. suñu yokkatee dootuñ bëgg a déglu waar mm. bëgg a déglu mm-hmm. ki leen di waar bu ko defee ñu tayal moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam la daan waare daf daan tànn jamono yi muy waare ku mel ni Abdullah nu Mas'ud moom waareem ñaari bés la ko daan def sax ci semaine bi mm-hmm. euh, wala sax euh, déggal benn bés la ko daan def ci semaine bi mm-hmm. mooy alxames ju mm-hmm. loolu yëpp ay stratégie la ak i méthode kii waare it mm. war na tànn baat yoo xam ne yuy jeexital la ci ñamuy waar tànn tem boo xam ne xam na ne ñi muy waar soxla nañ ko te jamono ju nekk hmm. la muy waare hmm. na waar wa la tax muy waaree hmm. na waare wa jëm ci loola ngir nit ñi am taasir walla taasur su fekkee ne daf leen di woo jëmee ci jihaat waar wa dafa wara nekk waar wu leen di xër ci jàmbaar ak wan leen it yool wu rëy bi nga xam ne moo ne ci jihaat ak amuk solo gi mu am solo ngir aar seen dund ak dunduk jullit yi mm-hmm. xale yeeg jigéen ñeeg mag mm-hmm. Mm-hmm. su fekkee ne dangay waare te waare yu jëm ci wàllu àlaxira dafa war a nekk waare wuy sewal xol ñu ko nooyal hmm? te waare saa yoo xamee ne demee na nii am nag taasiir am nag balaaxa dégg nga wajilat min hal qulub mm-hmm. xol ya dañ cay jàqe mm-hmm. dañ cay nooyee mm-hmm. way rafat min hal uyun xol ya uh, bët ya dañ cay tuuroo mooy rongañ yi ndax xol su ragalee rek bët jooy lu ëpp ci mbir yi wala lu bari ci mbir yi ci jamono waaye xol su woowee nuñ ci yàlla boole musal ñaareel borom bët ya du jooy hmm? danañ ci jànge it ne hmm. kiy waar aw nit hmm. te fekk mi ngi tàggoog ñoom hmm. waar wa dafay jeexital dafay jotal lu tax parce que kiy waare fekk ma ngay dem te xamul di ngeen gisante waa tam nag ndéet bokk la ki lay waar fekk yéen dëkk rawatina nag kiy tàggoo te tàggoo ba àllaaxira la mm-hmm. nga xam ne bu ngeen gisante yaa ko fekk mm-hmm. ka annaha mawidatu mm-hmm. muwaddain waare wi dafa taasir ci ñoom ba nga xam ne ñun daal dafa mel ni yonent mu dem dajak boroma effectivement waaw ñu ci it ne doomu aadama su amee occasion nekk ak borom xam-xam na wut ndénkaaneem mag ñi daan na buñ dajeewaan daan nañ laajante ak ndénkaane daan nañ laajante ak ndénkaane waaye laaj ndénkaane yi na nekk ci la nga soxla am na ñoo xam ne ci seen wàllu sayru ilallaahi lañ ko soxla ñoo xam ne ci seen wàllu jàng lañ ko soxla wala sax koo xam ne par exemple dafay tukki ñëwee di tàggu borom xam-xam na mm-hmm. ko laaj mu dénk ko mm-hmm. ndax ma ngay tukki mm-hmm. yooyu lu am solo la moo tax saxaaba yi bañ gisee occasion wu laaj yonantu sallallahu alayhi wa sallam ndax mel na ni mu ngi leen di tàggu laaj ko nag lu mu leen di bàyyee wam ko ko laajee mu wax leen li nga xam ne mooy li gën a am solo ci lu ñuy dénkub jaam mooy ragal yàlla ndax mooy ndénkaane bi yàlla ci alquran mooy dénkaane yonantu sallallahu alayhi wa mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. li gën a am solo mm-hmm. ci lu ñuy dénkaane mooy ragal yàlla mu bokk ci ndénkaane yonent ci hadis ji dégg ak topp ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox kilifteefu jullit topp leen dafa war ndax kitaab ak sunna ñoo ko waral mm-hmm. yàlla moo ne yaa ayuha alladina amanu mm. yéen ñi gëm mm. atiu llaha topp leen mm-hmm. yàlla mm-hmm. wa atiu rasula te ngeen mm. topp yonant wa ulil amri minkum ak boromi mbir ci yéen déggal de waxul wa atiu ulil amri minkum ñu déggee ci ne seenu topp mi ngi war ci bu ñu toppee yàlla ak yonant wax ne atiu llah ndax yàlla moom baax rek la ñuy digal mm-hmm. wa atiu rasula mm. yonentu mbaax rek la ñuy digal waaye mu ne wa ulil amri waxul wa atiu mm-hmm. jagleelu leen ak topp mm-hmm. mooy seenuk topp mi ngi aju ci seenuk topp yàlla ko mu ngi aju ci ñu digal ñu mm. loo xam ne mm. yàlla ak yonentu sallallahu alayhi wasallam digale nañ ko su ñu digalee lu safaanoog yàlla waa safaanoog yonentu ci digle duñ ko topp waaye ne ki ñu yilif hmm. wa in taamara aleykum abdun hmm. même su dee sax ab jaam la hmm, loolu nag liñ ciy déggee mooy nga xam ne gënal ci loxo yàlla la nekk nga xamee askan wu rëy kii bu ko yàlla jiitalee nga nga amee askan wu nga gën ki nga foog ne moom askanam rëyut wala ki nga xam ne askanam ci bëtu nit ñi doyut mm-hmm. mm-hmm. nga amee statut bu rëy ci société mm-hmm. xëy yàlla feeñal keneen bu tax nga diingat dogalab yàlla banu israila looloo leen daloon ci ba jiitale taalut leen seen yonentu waxee ne inna allaha qad baasa lakum taaluta malikan qaalu anna yakunu lahu lmulk wa nahnu axaqu أنه يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال waaw taalut nu ñu mën a yilife nu mën a nekkee suñ buur te ñun ñoo ko ci gën a xëy te moom amul dara sax ku tekkiw dara xaala inna allaha astafahu aleykum affaire bi kat yàlla la moo ko tànn ci yéen wa zaadahu bastatan bil ilmi wal jism waaw bu dee xam-xam hmm. ak bu dee personnalité hmm. yàlla jox na ko ci bam doy hmm. waaw bu ngeen ko xamutoon ci moom su ngeen ko gisee dootu leen ko xàmmee bon te sax wallaahu yuuti mulkahu man yashaa yàlla jox góor ko neex wallaahu waasiun aliim kon nit ki bum gis ni moom ki statuum lii la gannaaw yàlla moom la jiital nit ñi moom lañ jaayanteel des ko war a topp fekk mu ngi topp yàlla des ko war a topp fekk mu ngi topp yonentu sallallahu alayhi wa sallam danañ mm-hmm. jàngee ci xadis ji mujizaati yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci xabaare lu mm-hmm. dikkagut mm-hmm. fa innahu man ya'ish minkum fa sa yara ixtilaafan kathiira ni ko yonentu waxee noonu la dikkee xam nga ne Seydina Omar dee dañ koo rey loolu wuutee la euh, fitna la gu jur wuutee mm-hmm. Seydina Usmaan dañ mm-hmm. ndax wuutee ku bari gi amoon ci jamonoom mm-hmm. Seydina Ali dañ koo rey ndax fitna gu rëy ko amoon ci jamonoom naka noonu saxaaba yu bari ay courant euh, daal di feeñ yoo xam ne ku ci nekk dikk euh, noonu lislaam yi fexe nuñ yàqee lislaam waaye yàlla moom moo ne moo wàcce alquran te moo koy xaar ndax mm. aar alquran nag mm. mooy aar lislaam ndax alquran lislaam tax mu wàcce mm-hmm. moo tax yàlla moo aar lislaam ba ji mm. ba yàlla ak tey ji mm-hmm. tey la musiba yi gën a bëri tey la fitna yi gën a bëri tey la wuute yi la jullit yi gën a bëri mm-hmm. innahu man yaish minkum fa sa yara ixtilaafan ko mm-hmm. defee courant yi ñii ña nga naan yàlla amut ñii ña wax leneen ñii ña ngay dugal ci diine lu bokkul ñii ña ngay indi jikko yu baaxul di ko euh, banalise mm-hmm. yooyu yëpp ñun lan moo ñuy sauvé mm-hmm. mooy li nga xam ne moom la yonent du joxe mooy jàpp ci sunna sunna ay saxaaba yi ñu xamee ci nekkoon jàpp ci sunna lu war la rawatina indal ixtilaaf lu tax fa aleykum bi sunnati mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. jàpp ci sunu lu war la mm-hmm. waaye nag nit ki war na caa gën a moyati ngir gën a mën a mucc su wuutee amee loolu liñ ciy jàngee mooy ku nekk war naa jàng sunna yonent wallaahi salaam ndox loo xamut doo ko doo ca mën a jàpp taqoo sunna du mënta nekk du mën a nekk fekk xamuloo sunna kon wax jim ñuy wax ne war nañoo jàpp sunna hmm. dalil la ci ne dañoo war a jàng sunna hmm. naka noon tamit ñu xam ne xulafaaw yi hmm. seen sunna des koo war a topp ni ñuy toppee sunna yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa tax yonantu leen saxalal ne dañoo war a topp seen sunna képp koo xam ne dafay woote ne dafay topp sunna hmm. tey weddi sunnaay xulafaaw yi ba jëfi xulafaaw yi hmm. yonentu sallallahu alayhi la weddi hmm. am na tey ñu naan nodd gu njëkk ci bés àjjuma bidaa la tax xamuñ ko ci jamono yonentu sallallahu alayhi wa sallam ku ko sos ñu ne Usmaan ibn Affaan ñu ne dëgg la ci jamono Usmaan la Usmaan wax ne nañ def nodd googu waaye nekk nekk bidaa nag kooku moo nekk Hmm. lu tax ndax Ousmane xalifa la ci xulafaaw rachidin hmm. te yonentu moo digle hmm. ñu topp xulafaaw rachidin moo digle ñu topp seen sunna kon topp sunnaay Ousmane topp sunnaay yonentu bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama du noonu yonent sayidna Ousmane wuuteewul ak yonentu bi ba pare yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo saxal ne sunnay xulafaaw hmm. dañ leen di topp hmm. ndax li tax Ousmane sos euh, nodd googu hmm. wuuteewul ak sunna yonent bi sallallahu sabab bi xew ci jamonoy Ousmane xew ci jamono yonent yonent sallallahu alayhi wa sallam jamono Madina dëkk bu ndaw la woon boo noddee ñëpp dégg la soxlawuloo mm. nodd gu njëkk mm-hmm. pour nit ñi préparé wu mm-hmm. noddee rek mm-hmm. daanaka ñëpp gaaw agsi waaye ci jamono Usmaan nag dëkk mm. bi mag na daal nit ñi euh, daal di bëri mm. euh, bu ko defee ak doye dalu euh, julli commencé tàmbalee feeñ koo xam ne xewutoon ci jamono yonantu sallallahu alayhi ñu soxla nag nodd gu njëkk pour nit ñi daal di dégg nga mm-hmm. préparé wu mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ñu euh, ñëw bu imaam ñëwee ñu soog nodd loolu nag bokkul ak ñetti nodd yi ñuy def ñun ci suñ jàkk yi Sénégal ñetti nodd yi moom euh, taawil la goo xam ne dafa tegee ci ak njuumte ñetti nodd yi mm-hmm. genn gi mooy nodd gu njëkk gi Usmaan daan def mm-hmm. ñaareel bi mm-hmm. mooy nodd gi ñuy def bu ilimaan dikkee ilimaan bu toogee ñu nodd benn yoon mooy ñaareelu nodd ñetteelu nodd mooy li xam na yoonu salaasam nee nekk na ci diggante ñaari nodd yu ne ak julli loolu mooy lan mooy saa yu ñu noddee balaa ñoo noddaat pour julli da ngay noddaat pour julli mooy mooy liqaam ndax hmm. liqaam nodd la hmm. ndax dafay xamle ne julli gi hmm. teew na te nodd mooy xamle du noonu te yonentu sallallahu alayhi wa sallam gis nga ci jamonoom bu bilaal noddee dafay wax ne bu leen bàyyi lekk bu leen bàyyi naan maanaam bu leen bàyyi dara ndax bilaal nodd na ndax bilaal daf daan noddu mhm. balaa fajar di jot mhm. pour nit ñi yeewu mhm. ki doon naafile xam ne xëdd jot na mu daal di def safa ak wétalam dem xëdd ki newoon ak soxnaam xam ne préparation jot na ki doon nelaw xam ne fajar lay mu jot bu bu abdoulaye ibnu ummi maktuum noddee nag ñu xam ne fajar xar na mooy li ñuy wax salaatu tey niñ koy defee tey nag hmm. bokkut ak niñ ko daan defee ndax nodd gu jàkk gi hmm. dëgg dëgg moo war a am asalaatu xayru mina hmm. ndax mooy yee nit ñi ñun nag nodd gu mujj gi tey ci la ñu def salaatu xayru mina nawm ayul waaye am na dëkk yu koy def ba léegi ba demee ca nu baax ya ca dëkku Cheikh Baawul Abdullah ñoom ba léegi noddu gu njëkk gi mooy am salaatu xayru mina nawm mm-hmm. Ah, mm-hmm. wala xale yi ne di jàng mm-hmm. noddu gu njëkk gi mooy am salaatu xayru mina nawm kuy nelaw lañ koy wax bu yegg si kay xalaatu kon Ousmane dolli gi mu am na cosaan moo tax ñuy wax ne bidaa mooy luy sos ci diine te amul cosaan te sax Ousmane radiyallaahu anhu hmm. xalifa am na sunna hmm. ndax yonentu moo leen ko seedeel hmm, du noonu te xalaatu Ousmane amul sikk ne moo gën suñu xalaat te ba mu ko defee it saxaaba yëpp dañ ca dëppoo ak ñoom moom te yonentu nee na xeetam buñ dajee ci réer te saxaaba yi mooy ijmaaw gi gën a am mooy ijmaaw gi gën a dëgër kon jàpp sunnaay yonent ak sunnaay xulafaaw yi duur lu ñu war a fooye lu ñu war a fonk la fonk gasax du fonk kese waaye lu ñu war a fonk lool la ndax addu aleyha min nawaajib mu ñu it bidaa ndax iyaa mooy tax taxdir la wa iyaakum wa muxdasaati l umuur bu dee ci àdduna hmm. am na loo xam ne lu ñu créé la hmm. mel ni eh, microfone bi hmm. ñuy waxee mel ni ordinateur bi mel ni iPad bi mel ni téléphone bi dégg nga mel ni moyen de communication yi ak yi nga xam ne dañ di jëfandikoo ci guerre yooyu le yëpp ak moyen de transport yi yooyu yëpp yuñ sos la lépp loo xam ne lu amoon njëriñ mm. nit ñi la mm. yiw na mm. dañ koy nangu mm-hmm. lépp loo xam ne luy lor nit ñi la dafay bon mm-hmm. Mm-hmm. ñuy wattandikuloo nag ci luñ sos dëgg mooy luñ sos ci diine moo xam ci aqida la moo xam ci wax la moo xam ci jëf la lépp luñ sos ci diine ndaw na walla mag na suñ xoolee ne amul cosaan ci sharia rek dafay nekk biddaa su fekkee ne am na cosaan ci sharia nag hmm. dafay dugg ci hadisu man sanna fil islaami hmm. sunnatan xasanatan hmm. fa man amila biha ila yawm al qiyamati ku sos ci sunna su rafet dafay am yool ba ak yoolu ku ko ba yawm al ni ki saxaaba yi dajale gi dajalee eh, alquran ci ci kaamil wala dajale dajale kaamil yëpp ci benn kaamil sunna su rafet la ndax lañ ca doon jublu mooy fexe ba jullit ji hmm. duñ tàqalikoo hmm. te duñ réerit hmm. bay jàngee alxuraan nuñ ko war a jànge naka noonu dajale giñ ñu dajale sunna ak bunt yi ñu ko ubbil ak niñ ko toftalee naka noonu liñ ko def ci fiq nga xam ne dana dimbale nit ñi bañ mokkal sunna xam diine naka noonu sos yiñ ñu sos daara yi ñuy jàngee xam-xam ak école yi yooyu yëpp ay bidaa la yoo xam ne yu rafet la mm-hmm. walla sax ay sunna lañu mm-hmm. mm. mm-hmm. bokk na ci lii tegtal bidaa bu rafet am na mm. lii Seydina Omar wax nicmatil bidaatu haadihi ñu naan bidaa bu rafet amut seen tegtal dëgërut bidaa ñaar la mm. mahmuda mooy bi nga xam ne am na cosaan ci sharia ak mazmuma mooy bi nga xam ne amul cosaan ci sharia am na sax ñu ko séddale ba juróom mel ni Iisaa ibn Abdu Salaam mm. bu fekkee luñ sos buñ ko mm. xoolee mu ne lu dagan la ne mm. bidaa bu dagan la buñ xoolee cosaanam dafay dellu ci luy sib mu dellu ci lu ne bidaa bu xaraam la mm-hmm. buñ ko delloo ci cosaanu sharia mu nekk mu dellu ci loo xam ne ni mënta ñàkk lu war la mu nekk bidaa bu war mm-hmm. su fekkee ne luñ sopp la mu nekk bidaa buñ sopp mm-hmm. Seydina hmm? Omar ba mu gisee nit ñi ñii di julli fii ñii di julli fële ñii hmm. mu dajale leen ci ab ilimaan hmm. benn ilimaan ku mel ni Tamimu Daari ak Ubay ibn Kaab ñu leen di jiite ba mu ñëwaatee gisee fi mu rafet lool mu ne ah ni'matul bidaatu haadihi dana am ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa mos na ko def waaye bàyyi woon na ko kon nit ñi gàddaayoon nañ ko ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ko commencé ba hmm. ndax dafa bañ eh, ñu yoonal ñu ñu yoonal ko mu wét mu métti hmm, hmm. waaye ba mu fiy jógee it waxul ne nañ ko def waxul ne buñ ko def xeensal na ko ki ko indi gis ne jamono laaj na ko mooy naa Omar ñu seet gis ne dellu buñ ko delloo ci cosaan eh, duñ ko mën a tuddee bidaa Seydina Omar xalifa la ci xulafaa yonent bi ci gàttal daal bidaa ñaar la boo xam ne buñ sant la hmm. ndax am na aslu hmm. ci shariat hmm. dégg salaatu yu bari yi ngay gis ala nabi sallallahu alayhi wa sallam eh, du bokkul ak yi nga xam ne yonentu joxe woon na ko waaye yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba muy joxe yooyu dafay joxe ay exemple rek moo tax ku mel ni Abdullahi ibn Mas'ud ne bu ngeen di julli ci yonent bi na ko rafetal léegi léeg nga dégg ku ne la jullik sàngam bidaa la hmm. te moom ba muy wax loolu hmm. discours ba mu ubbi julli julligam ko ubbee jullig bidaa la ndax hmm. julliga solol ci yonant ni dana wax ne alhamdulillah wa usalli wa usallim ala rasulillah wala wasalaatu wasalaam ala amul ci hadis ku bind téere rek baa nga defub discours fent nga julli gu bees su fekkoon ne eh, dañ leen di dugal ci bidaa kon yooyu yëpp bidaa lay doon waaye léeg-léeg nit di weddi dara hmm. fekk bal kadabu bi ma lam yuxitu bi hmm. Hmm. li muy weddi xamul ndax mi ngi koy def waaye taxassub dana tax léeg-léeg nit weddi lum xamut wala nit weddi lum xam sax waaye euh, nafsu ak seytaane mën ko baa ñu muur bi rob bëtam ba du ko gis euh, lépp luy sos nag te ñu xool amuñ cosaan ci sariatu kooku dañuy xam ne bidaa la hmm. buñ ŋàññi hmm. bu xëy rek ni julli hmm. dootul ñeenti rakk tisbaar juróomi ràkk la kooku bidaa buñ ŋàññi la ndax dafa sos ci sharia loo xam ne nii dafa xaraam boo delloo euh, fekk na yàlla daytal na rakka yi yonent yi daytal na leen kenn mënu caa yokk kenn mënu caa wàññi yàlla def ñuy sunna ak way topp sunna sun ci bidaa ak euh, topp ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin mm-hmm. hadis ji nag mm-hmm. euh, defe naa waxuñu ki ko solo mm-hmm. euh, hadis wa tirmidi hadis wa abu daawud ci sunanam bokk na ci al kutubu as sitta ak imam tirmidi radiallahu tabaraka wa taala mm-hmm. anhu mm-hmm. ci sunanam mm-hmm. bokkul sunu imam Tirmidi nag am na ay téere yu bokkut ñaareel bu ne rawaawu Tirmidi yu rek mi ngi ci jublu ne mi ngi ko solo ci uh, sunanam radiallahu tabaraka wa taala anhu mm, loolu dafay baax xadis yi nga xam uh, ko solo ngir boo ci bëggee lu gën a leer nga dem fekk ko foofu mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. waaw abu daawuda wa tirmidi ak imam tirmidi wa qaala tirmidi sax yokk na ci ne xadisun xasanun saxiixun ju rafet la ju wér la waxoon nañ ne xadisun xasanun saxiixun fekkee benn riwaaya rek la am benn sanad rek la ki wax ne xasanun saxiixun dafay déngi déngi ndax ci xasan rek la xem wala mm-hmm. yegg na ci saxee mm-hmm. su fekkee am na ay riwaayaat nag mm-hmm. wala ay sanad yu bokkul dafay wane ne am na sanad gu xasan am na sanad gu saxee hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama